booba laa fa bàyyi ko ngir ngàmba libération yi ni kaay wàllum yàqute ka jikko la daal di fesal ci xatam wu njëkk journal bi ne fukki at ak ñett la xale lu jigéen gi am ña ngi ko jàppee woon ca yoof soppi ko jaam góor ñi di ko sëye mu doon ab liggéeyam la ca gën a yées nag mooy xale bu jigéen boobee kii di waajurum wu jigéen moo ko doon wëral ay client waa ji ñi wax balde nekk xaritu bàkkanam waajur wu góoram waajur wu góoram di baayam moo ko làqoon ci barab ñi di ci amal ab bu sakkan te booba laa fa bàyyi ko ngir ngàmba libération yi ni kaay wàllum yàqute jikko la daal di fesal ci xatam wu njëkk journal journal bi ne fukki at ak ñett la xale lu jigéen gi am ña ko jàppee woon ca yoof soppi jaam góor ñi di ko sëyee mu doon ab liggéeyam la ca gën a yées nag mooy xale bu jigéen boobee kii waajurum wu jigéen moo ko doon wëral ay client waa ji ñuy wax balde nekk xaritu bakkanam waajur wu góoram waajur wu góoram di baayam moo ko làqoon ci barab ñi di ci amal ab commerce bu sakkan daganul